sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala wa ashaabihi wa man tabiahum bi imaanin wa ixsaanin ila yawmi ddin wa baadu fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokk yi topp seen sit muslih tv com seen mbokkam daara Alioune Cissé mooy am mbégte di leen si di leen nuyu te di leen ziyaara di ñaan yàlla ci néew bi fekk leen ci jàmm ñu fas yéene dellusiwaat ak yéen ci liggéey bi nga xam ne baaxoo nañ di ko ànd ak yéen mooy leen jéem ànd ak yéen ci téere bi ñu tuddee al axdariyu fi l ibadat ala mazhabi imam malik radiallahu anhu dayoon na nag ñu jël nag yéen du tolloog fukki dars ak ñeent ci téere bi tey ñu war a ñëw ak yéen suñu fukkeelu dars ak juróom biñ fi mujj borom téere bi mu ngi doon jàngal lu jëm ci wàllu baaxu jigéen mooy reegal yan àttee ci warat yeni mel ba mu jeex kon tey boo ma toppee tey borom téere bi mu ngi ñu bëgg jàngal ki nga xam ne dafa am janaaba ak yan àttee la ko islaam di aaye ak lan la ko sharia di aaye boo ma toppee tey loolu la ñu borom téere bëgg a jàngal ak jigéen bu ëmbee ba gis ah, bu amee doom ba pare deret ji ànd ak moom ñaata jamono la war a ànd ak moom ak li boo ma toppee rek borom téere ba ñu leer la lépp kon mi ngi jàng commencé tey fi mu wax ne wala yaxillu li xaaidin salaatun wala sawmun ilax ba téere ba jeex mu ne wala yaxillu du dagan lil xaaidi ci ko am régal ki ne daganu ci moom asalaatu julli jigéen bu amee régal daganu ci moom muy julli waaye naka noonu wala mun du caagi nag koor nit bu amee régal dara ah, daganu ci moom muy koor lu tax loolu nag dañuy wax ne maam aadama alayhi salaam ginnaaw bi nga xamee ne maam xawa bi nga xamee ne moom deret régal ah, diggal nag ci jamono julli daf ko da laajutoon dara moo tax borom bi nopp ci seetaan ku mu nekk may ko ko muy nopp noflaay waaye naka noonu bi ñu ko laajee ci la ko yàlla waral ci moom ne ko koor yi nag da ko fay waaye léegi moom laa yutoon moo tax waxuñ ko ci dara kon moo tax yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daana araftu xeetam ne la bàyyi leen di bëri nga ni laaj ndax laaj dafa tax ñu day tax ñu bëri lu ñu waral te bu ñu waralee boo difut rek borom bi duma la moo tax keroog bi nga xamee ne woon na saxaaba yi ne yàlla faratal na ci yéen aj màkka benn waaye nekk ndax at mu jot mu ne pattu faalewu ko mu ne ko ndax at mu jot faalewu ko ba mu paree ci la ne ko su ma waxatee noppi fu ma yem dee leen fa yem waaye su ma noonu waaw tey te mënu leen ko ba waa bu ñu ko defut duma da leen ciy fekk kon xeet yi njëkkee la taxoon yàlla di leen buggal bari na ci mooy bëri di laaj laaj yu bëree bëree bëri ba mujj du may borom fekk leen ci bokk na ci yent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu waxee gars yi rey wa ak seen laaj yi bëree ba fañ mujj ak nago wa maa kaadu yafaaluun foofu lañ mujj kon mi ngi noonu daal bëri laaj daal baaxut kon moo tax nee naa mu ngi noonu wala yaxillu dagan lil xaa'idi ci am régal salaatun julli waaye nekk noonu wala sawmun du caagi nag waaye wala tawaafuun ki am reegal daganu ci moom tamit muy wër kaaba gi waaye nekk noonu wala mas mushafil quran daganu ci moom muy laal kaamilu alquran moom mi am reegal waaye nekk noonu wala duxulul masjid daganu ci moom moom mi am baax muy dugg ci jàkka waaye nag wa alayha war na ko xadaa u saw mi fay koor yi moom mi am reegal nag bu koor gi jeexee moom da koy fay ndax lan julli jamono bu nekk dafay ñëw a ah weer bët bi set dafay ñëw waaye la moo tax moom yomb naa fay waaye julli nga xam ne jamono bu nekk day répété boo ko naree fay day mujj diis te borom bi ne yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla de lu yomb la bëgg ci ñu waaye bëgganul loo xam ne lu jafe la wala lu métti wala lu ñuy moo tax moom julli moom koy baal waaye koor gi nag da nga koy fay ndax koor moom at ak at la kon boobaa moom te du bëree bëri ba mat a fukki fan ak juróom kon loolu yomb naa fay kon ñu bañ di ci sàggan tamit des fois ci ay jigéen da dégg ñuy wax ne ñoom duñ fay loon teg yàlla amaana loolu yàlla teg la waaye ne la bu paree nga fay ko yow nga duma ko fay ndax ma duma fay lan toog yàlla te yàlla mi la ko teg moo la na nga ko fay kon mi ngi noonu kon bu mu paree kon suñu bor ko waaye nekk noonu moo tax ne na qadaa soomi fay koor yi duuna salaati walif julli julli daal baal moom mi am reegal lu dagan la dagan na mu jàng alquran waaye nag bu laal téere ba moom mi am reegal waaye nekk noonu mu ne wala yaxil du dagan moom mi am reegal li zawjiha ñeel borom këram farjiha pëyam moom mi am reegal borom këram dañ koy aaya pëyam pëyam mooy awraam waaye naka noonu wala ma bay na suratiha war ko ba tey ha li nekk ci diggante jimbax bi ba ci bët oom yi dañ ko koy aaya moom jëkkër ji bum ko laal naka noonu waaye nag wut am na ci borom xam-xam yi bu dee dafa wodd wala mu teg ah, mu sol sér daal boobaa ni naan ma am na ñu ne nangu ne mën na ko mën na koo laal ci kaw séer bi waaye nag bu dee nag mubasharatan moom dañ ko koy aaye loolu moom ñépp a ci bokk dëppoo naka noonu tamit ndax borom bi moo ne ah dañ ko laaj yasalunaka anil mahidi qul huwa azan ta'tazilu nisaa fil mahidi borom bi subhanahu wa taala daal mooy jigéen ñi daal bu ñu amee régal na nga leen soli na nga leen beru waaye nag u jaagee nag tamit na ko ñu jiit ñu ne daan defee sa soxna bu ayee doo bu gisee régal doo lekk lekkam doo naan naanam doo ko jege bu tëddee ci kaw nga tëdd suuf loolu moo ëppal la mën ngaa def ak moom lépp waaye daal li ko degee ci jimbax yi ba ci bët oom yi daal lal islam di aaye waaye ñenaan sax danga nangu neen nga laal ko ci kaw sér li gën daal te gën a wóor mooy bu la bi aayee bul boo jegee amaana bu yàggee mën ngaa yegg fa warta yegg kon daal mi ngi noonu waaye nag noonu mu ne xataa taxtasila bu ko jege lu dul dafa set ba sangu bu setee te sangu sax amoo sañ-sañ jege ko xataa mu sangu daal ba pare ci nga koy door a mën a jege kon pare na ci loolu mi ngi dikk ci loo xam ne sorewut ak lii mooy nifaas mooy jigéen bu amee doom ba pare deret ji ànd ak moom lan mooy atteem ak ñaati bis la war a nekk ci ànd ak moom boo ma toppee dana la ko jàngal mu ne kal xaydi dafa mel ni mbërëg dafa mel ni régal nee dereti wasin nee dafa mel ni dereti régal fii man xëy ci tere gi maam ñoo bokk li ñuy bañ ñoo bokk li leen aaye waaye nag nee na wa aksaruhu wa aksaruhu li gën a bëri ci dereti ku am doom mu ne situna man lu gën a li gën a bëri mu ne situna yawman juróom benn fukki fan la li gën a bëri ci dereti ku am doom daal li gën a bëri la la wax nag mooy 30 jours kon bu la waxee loolu kon xamal ne kon mën naa am lu ko gën a ndaw kon lu mooy mafhum bi mooy dégg-dégg bi moo tax mu ne wa aksaruhu li gën a bëri sittuuna yawman juróom-benn fukki fan la mu ne fa in inqataa bu daggee addamu daraja qablaha lu njëkk juróom-benn fukki fan lu ci war mu ne dangay dem sangu ji mu ne walaw fi yawmil wilaadati donte ci bis bi nga am doom ci la dara ji arrêté mu ne salaat demal nga sangu ji salaat ta nga julli mu ne li gën a bëri daal ci dara ti ko am doom mënut a bëri ba paase juróom-benn fukki fan mooy ñaari weer mooy 60 jours léegi nag bu dee dafa am ñaari fan dagg luy atte bi dama nga sangu ji commencé julli waaye nag suñu bokk jigéen a ngi soo xam ne day am semaine mu arrêté mu toog rek bañ a naan day xaar 2 mois 2 mois yi mooy fekk deret ji mi ngi ànd ak yow ndax xam nga ne deret ji moo tax ñu la bul julli kon jàppal ne heure bu arrêté rek demal nga sangu dem julli ji ndax deret li moo nekkoon gànt li waaye bul am semaine arrêté nga naan 2 mois lay xaar boo ko defee yaa ngi ci mooy yàlla bu rëy a rëy ndax deret ji moo ñun la bul julli donte da ngaa am doom 2 heures seen kër mu arrêté dama nga jàpp dem julli dama nga sangatu dem julli ji xamal ne deret ji daal ci gàttal moo tax ñun la bul julli heure bu arrêté nag damal nga sangatu dem julli ji dañ laa wax lu mu bëri bëri mun a passé en ñaari weer muy ñeent fukki fan juróom-benn fukki fan donte am na nañu wax ñeent fukki fan waaye daal lu mu bëri bëri te liñu tënku jàngale ci Maalik daal mooy juróom-benn fukki fan mënut a bëri ba weesu ko waaye nag mooy mën na kaa gën a tuuti mën naa am ñaari fan mën naa am juróomi fan ndax léegi médecin avancé na ma ne laa jox yoo xam ne balaa mat semaine wala fukki fan mu arrêté waaye heure bu arrêté demal nga sangu ji te commencé julli bul sa wér maye borom kër soxlaa loolu nag sa wér la aju bu la nga dem ànd ak moom kon mi ngi noonu kon bàyyi xel na heure bu arrêté la demal nga sangu ji te commencé julli sa borom kër soxlaa bu dee amul benn ngaañ boobaa ma nga ànd ak moom waaye nag bu dee nag am am na semaine dagg nga commencé julli mën dafa dellusiwaat moo tax mu ne fa isa awadaha bu del dellusiwaatee addamu deret de fa in kaana bu nekkee baynahuma seen diggante ñoom ñaar xam sa ansara yowman fukki fan ak juróom fa ak sara baa di ko góori gën a bëri nekk na saani ñaareel ba xaydan dimbarat wa ilaa bu ko matut dumma nga tàppe ila awali bu njëkk ba wa kaana nekk na min tamaamin nifaas yi ba ci matug wasin ki nga xam ne nag dafa amoon semaine deret ji arrêté ah mu toog lu mat 15 jours wala lu ko gën a bëri lu passé 15 daal mu ñëwaat dañ naan ko lii ñëwaat nii du dereti wasin mais dereti ah, règle la loolu lañ koy wax ki nga xam mat na quinze jours mu door ñëwaat dafa arrêté ba mat 15 jours mu ñëwaat dañ naan ko lii ñëwaat nii dereti en règle la waaye ni ko tudd dereti wasin waaye bu dee dafa arrêté lu mat semaine mu ñëwaat dañ naan ko deret bii mook booba ñoo yem dañ naan ko deret bii daal mook dereti wasin ba benn la bu dee dafa arrêté 10 jours mu ñëwaat dañuy jàpp ne bii ak booba tamit ba tey benn la da ko ciy tàppe rek waaye bu dee daal matut lu mat bu dee mën na 15 jours jëm kaw nag dañ naan la lii 15 lay doon bu dee mat na 15 jours jëm kaw daal dinaa la bii régal la waaye bu dee matu ko daal da nga koy tappe da ngay jàpp ne deret régal ba deret wasin ba moo arrêté woon rek waaye daa ñëwaat boobaa da nga koy tappe mais nag day fekk boobaa matut 15 jours bu dee 11 jours la ñëw jàppal ne kon bii ci deret wasin bi la ba tey da nga koy tappe bu dee nag ah, passé na 15 nga jàpp ne kon deret bii ñëwaat ni deret régal la kon mi ngi noonu loolu la bëgg na leeral rek kon xam naa ko ñëw jaaraat ci anam bu gaaw mu ne faslun li ab taqel la fi nifaasi lu jëm ci wàllu wasin mu ne wan nisaau jigéen ka wan wan ni wan ni wan ni faasu wasin mu ne kal xaydi dafa mel ni mbërëg dafa mel ni règle mu ne fii man xiixi ci tere gi mu ne wa aksaruhu li gën a bëri ci dereti ku am doom mu ne sittuuna yow man juróom-benn fukki fan la ah mooy bë li gën a bëri xam ne nu ko weesu waaye nag nee naa la mën na koo gën a tuuti moo tax mu ne fa in qatan bu daggati ko adda bu daggee addamu daraj la qablaha lu njëkk juróom-benn fukki fan bu dee arrêté na lu njëkk juróom-benn fukki fan mu ne walaw fii yawmil wilaadati donte bis bi nga am doom sax ci la arrêté bu li ci war mu ne ixtasalat demal nga sangu ji gaaw dawal gaaw nga sang ji waaye wasallat da nga commencé julli ndax deret ji moo taxoon ñu ne la bul julli kon bu arrêté rek demal nga sangu ji te commencé julli waaye bu toog di mooy yàlla naan man 60 jours lay xaar ne la 60 jours yi mooy day fekk ah deret ji arrêté wut waaye bu demal nga sangu ji waaye nag bu dee mel ni daraj dafa dellusiwaat mu a fa iza awadaha bu dellusiwaatee addamu daraj ja da fa in kaana bu nekkee nag bay na baynahuma diggante ñaari daraj fi mu daggee ak fi mu ñëwaatee bu dee mat na lan xam xamsa asara yawman fukki fan ak juróom bu dee fi mu daggee fi mu ñëwaatee mat na fukki fan ak juróom fa ak sara ba ëpp fukki fan ak juróom kamal ne kon kaana nekk na saani bu ñaareel bi xaydan di mbërëk bu dee mën na 15 jours jëm kaw daal kon bi mujjee ñëwaat noonu da ngay jàpp na reegal la waaye nag bu dee bu dee matu ko dumba nga tàppee ilaa awali ca bu ah, bu njëkk ba bu dee matut 15 jours nag li ñëwaat noonu da jël taf ko ca la nga njëkkoon a gis bu dee 10 jours la woon bu ñëwaatee nga jàpp ne yaa ngi 11 continué di mat daal wa kaana dee matu sa nifaas mat rek ji te commencé jaamu ji yàlla bu la bu dee wér may na la ko boobaa nga dem ànd ak moom kon mi ngi noonu daal ñu bàyyi xel bu baax na ci mbokk jigéen ñi nee leen ba tàyyi nekkul ne da ngay toog rek di xaar 2 mois mooy li gën a bëri mënu ko weesa waaye man na ko gën a tuuti mën naa am ñaari fan dagg ñetti fan ba ci bis bi nga am doom sax bu arrêté demal nga sang ji te commencé julli kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax xam naa kon ñu ngi ñëw di foofu di wax ne lépp loo xam ne leer na ci dars bi ah, ñu ngi koy sante borom bi subhanahu wa taala waaye lépp loo xam ne ah, gàtt na ci ah, jubu ki jubu ci ñu ngi koy jégalu borom bi di leen ko jégalu naka noonu di jaajëfal oustaz Saïd mi nga xam ne moo nekk na ñun ci caméra bi waaye naka noonu di jaajëfal mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ci site bi te di leen woy mi di leen ah, ñaax ngeen woy di abonné di wax ne seen mbokkam daara Alioune sise li ci leer yàlla la li ci lënam gàtt xam-xam ak ñàkk fa fasaxa la in uridu illa al islaha mastataat wa ma tawfiqi illa billah wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh